jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q radio ñu dalal leen seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi ñu fesal boppi xibaar yi kuréel gi ñu xamee si di National Environment Agency di kuréel gi nga xam ne ñoom lañ sas pour daal ñu saytu alam gi suñu nag wàllu waruwaay gi keroog nag daal euh, talaata daal dinañ nag daal màggal li nga xam ne moo di bés wala bëccëg bi nga xam ne moom nag lañ jagleel mbiru nag alam suñu wàllu waruwaay gi di rek World Environment Day rek daal ab ndaje boo xam ne daal dañ ko def nag daal pour gën a askan wi nag ñu sàmma li nga xam ne moo daal suñu nag alam geek wàllu li nga xam ne moo suñu waruwaay dinañ ko waxtaan si biir xibaar yi bés wala bëccëg bi nga xam ne moom lañ xamee si di World Against Human Trafficking mu di bés wala bëccëg bi nga xam ne moom nag lañ nag jagleel doomi aadama yi nga xam ne dinañ leen di faral di jëlee si seen ay nag dëkk wala si béréb di leen yóbbu si yeneen i béréb si rek loo xam ne du seen sago am na daal bés wala bëccëg boo xam ne tamit donc daal dinañ si faral di si amal ab taxaw seetlu fii si biir réew mi nag daal amal na si li nga xam ne moo di ab taxaw seetlu kuréel gi nga xamee si di National Agency Against trafficking in persons ñoom nag ak daal seeni ay àndandoor nag ñoom ñoo ko nag daal di amal dinañ ko yaatal si biir xibaar yi kër gi ñu xamee si di Gambia Transport Service Company di kër goo xam ne ñu ngi ci rek wàllub nag daal dama kër digg amee nag li nga xam ne moo di ay boos wala daal ay waruwaay keroog lundi daal daal dinañ nag amal ab ndaje boo xam ne siq nañ ko ak way euh, taskatu li nga xam ne moo di daal xibaar yi di daal di jëkkale ne daal dinañ war a nag li nga xam ne moo di ab daal xeetu njëfandu bi nga xam ne nag daal euh, moom nag lañ xamee si rek daal euh, di travel smart card wala sax daal ñu duppee ko di taamu di ab nag carte wala carte goo xam ne nit mun na koo nag daal jëfandikoo du ko si seeni nag li nga xam ne moo ay boos te tax sax daal du aajo nga nag yore li nga xam ne moo di daal xaalis dinañ ko yaatal si xibaar yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu di yaatal bala la fanweeri fan yi ak benn si weeru julaay atum 2024 di atum ñaari junne ñaar fukki ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaari Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi kuréel gi nga xam ne City National Environment Agency di kuréel gi nga xam ne ñoom lañ sas pour daal ñu saytu alam gi suñu nag wàllu wóoruwaay gi ñoom ak daal seen ay àndandoor talaata màggal nañ wala daal dinañ amal ab taxaw seetlu bés bi nga xam ne moom lañ xamee si di World Environment Day di bés wala bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel mbiru nag daal alam gi suñu nag wàllu li nga xam ne moo di wóoruwaay gi li nga xam ne moo di bés bi nag daal dañ koy nag daal màggal di si amal ab taxaw seetlu pour daal gën yee li nga xam ne moo di askan wi ñu nag daal sàmm li nga xam ne moo di alam gi suñu nag wàllu li nga xam ne moo di wóoruwaay gi loolu ñu xamee si World Environment Day di rek bés wala bëccëg bi nga xam ne moom nag lañ jëkkal suñu wàllu wóoruwaay daanaka at mu nekk mu nag juróomi fani si weeru juun nag jotee si lañ koy faral nag di ko nag daal di uh, màggal fii si biir réew li nga xam ne moo di gàmme daal keroog talaata daal lañ ko nag daal di màggal fii si biir réew mi li nga xam ne moo di màggal bi nag ñi ko doon màggal nag daal ñu ngi nag amaloon loolu ñu xamee si March Pass boo xam ne tàmbale nañ ko fi ñu rek daal si rek daal di youth management bi nekk fa si diwaanu li nga xam ne moo Westfield ba si li nga xam ne moo Makani National Environment Agency bi nekk foofu si diwaanu li nga xam ne eh, moo di daal Kanifing bi nga xam ne daal yegg nañ ci nga xam ne moo di béréb boobu ki si Cheikh Al Kinki Sagne nga xam ne moo yore nombal tànk bi ñu xamee senior programme officer environmental education and communication moom nag daal dina wax lu aju suñu la moo xam a soxal bu ñu sukkandiku si ay kàddoom daal di sàkku si li nga xam ne moo di askan daal war nañoo génn nag daal di farlu si rek daal sàmm suñu nag alam li nga xam ne moo di daal wóoruwaay gi daal dina wax ne daal li nga xam ne moo daal nag kilifa yi teg ay sarta yoo daal dina tax nag daal askan wi nag daal mun na nag daal sàmm lu nga xam ne moo di suñu àllam rek suñu nag wàllu li nga xam ne moo di wóoruwaay gi mu nag daal di wane li nga xam ne moo sarta yooyu nag daal askan wi nag daal dinañ tënku si li nga xam ne moo sarta yooyu kiñ xamee si rek docteur Daouda Badji nga xam ne moom nag moo yilif National Environment Agency ñu dénk ko fa nombal tànk bi ñu si executive director daal dina wax daal si rek li nga xam ne moo di daal liggéey bi nga xam ne ñoom NIE ñu ngi koy def nag daal liggéey bi nag daal du ñoom rek daal ñoo koy def gannaaw bi nga xamee ne daal am na ab lëkkaloo goo xam ne dox na seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di local municipalities yi directement kaani gox goxaan yeeg euh, si seen wàllu li nga xam ne moo daal euh, liggéey te nag daal lëkkaloo bi nag daal daanaka si nag daal ay at nag yu yàgg la goo xam ne daal li tax a jóg li nga xam ne moo di lëkkaloo bi pour rek daal li nga xam ne moo di makkaani gox goxaan yi nag daal jàppale leen seen wàllu li nga xam ne moo di daal liggéey mu nag wax ne nag daal li nga xam ne moo di sàmm suñu ak suñu nag alam gi nag daal nag daal nit ñi ñoo war a gën a jël seen ay matuwaay wecc suñu ay nag jikko fexe nag daal suñu alam gi suñu wàllu wóoruwaay gi nag daal mu nag doon loo xam ne daal lu ñuy nag daal di sàmm la ki ñu si rek Rohey John Manjang mooy ministre wala jëwriñ ñi nga xam ne moom lañ dénk mbiru alam gi suñu nag wàllu wóoruwaay gi moom nag daal dina wane nag daal li nga xam ne moo di sàmm suñu alam gi suñu nag wàllu li nga xam ne moo di wóoruwaay gi lu ama am solo la gannaaw bi nga xam ne dina tax na daal ñu mun a fagaru bu baax a nga xam ne moom ñu xam ne si climate change maanaam daal soppeeku li a xam ne moo di daal euh, jaww ji mu ne daal lii daal pour rek daal ñu def ko ñu ñëpp nag daal ñoo war di nag daal yëkkateendoo di tegandoor bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom Fatimata M Fatajo nga xam ne moom ab student la wala ab taalibe la bu jugee ko si daara jiñ ñu xamee si Bakoteh Proper Lower Basic School ak ki ñu xamee si Samba Kamara jugee ko si school wala daara jiñ ñu xamee si Old Joswang Lower Basic School ak ki ñu xamee si Aysatu Ndaw jugee ko si school wala jàngukaay bi ñu xamee si Sukuta Lower Basic School ñoom ñëpp nag daal teewe woon nañ nag ndaje mi wax ne daal li nga xam ne moo di ndaje bu nga xam ne moom lañ nag daal teewee ab ndaje la boo xam ne daal am na lu bëri loo xam ne daal jàngee nañ ko te si li nga xam ne moom lañ fa jàngee dinañ ko nag séddoo ak daal seeni nag daal ay naataango yi nga xam ne ñook ñoom nag ñoo bokk li nga xam ne moo daal bérébu jàngukaay te tamit duñ ko fa nag yemale rek daal waaye nag si seen ay bérébu dëkku dëkk seen seen nag li nga xam ne moo di gox yi sax daal dinañ ko euh, dinañ ko fa nag daal di wasaare bu ñu sukkandikoo si rek ñoom students wala taalibe yi nga xam ne euh, te woon nañ li nga xam ne moo di ndaje moomu ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar kuréel gi ñu xamee si rek daal euh, di National Agency Against Trafficking in Person di kuréel gi nga xam ne ñoom lañ chasse brutale ñuy sàmm askan wi surtout askan wi nga xam ne dinañ leen di faral di jëlee si béréb leen yóbbu si béréb si rek loo xam ne du seen sago ñoom it nag daal keroog nag li nga xam ne wala sax daal ñoom it nag daal màggal nañ ab bés wala bëccëg bi nga xam ne moom nag lañ jagleel li nga xam ne moom lañ xamee si di World Day Against Human Trafficking nga xam daal dañ ci nag ànd ak li nga xam ne moo di daal seen nag daal ay àndandoor bi nga xam ne daal ñu ngi amal ab ndaje boo xam ne ñu amal ab taxaw seetlu si li nga xam ne moo di wàll woowu ki si ay Fatu Daabo ak ki nga xam ne moo di US ambassadeur to the Gambia Saron El Koroma ñoom ñëpp nag daal fesal nañ li nga xam ne daal moo di daal euh, lim bi nga xam ne daal euh, moom nag lañ nag nemmeeku si li nga xam ne moo di ay tuut tànka wala ay xale yoo xam ne daal dañ leen jëlee si béréb yi bu leen si rek yeneen di béréb si rek loo xam ne du seen nag daal sago mu nag wax ne ñoom nag wax nañ ne lii nag daal euh, ñëpp nag daal ñoo si woon a war a daal di jàpp fexe loolu nag ki nga xam ne moo nag euh, yëkkati kàddu foofu tamit moo di ministre wala jiw ji nga xam ne moom lañ dénk mbiru yoon ak yoonal Dawda E Jallow sant na gërëm na mbootaay bi ñu xamee si natib ak daal seen ay anandoor ak US embassy bi si embassy bi si li nga xam ne moo di seen nag daal euh, jéego yi nga xam ne ñu ngi koy jël pour a gis ne li nga xam ne moom lañ xamee si human trafficking maanaam jëlee ay doomi aadama si béréb yéen yóbbu si yeneen i ne du seen sago taxawaay biñ ci taxaw nag daal gërëm na leen si santal na leen si waaye nag daal wax na ne nguur gi nag daal dinañ ci nag gina a jë farlu ñoom it pour a gis ne nag li nga xam ne moo di mbir mi ñu nag indi si li nga xam ne moo di ab safara Carl Carl Frederick Paul nga xam ne moom mooy UN Resident Coordinator euh, moo toogal mbootaay àddina si nga xam ne UN fii si biir réew wala United Nations moom nag euh, daal dina wax ne daal li ñu nag nemmeeku nag mooy nag réewu Gambie si li nga xam ne moo di wàll woowu nag daal surtout nag si rek wàllu ay yi nga xam ne mooy tere jëf jooju nag daal réewu Gambie daal am na la ay matuwaay wala ay jéego yoo xam ne euh, jël na ko si bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo daal xibaar kër gi ñu xamee si di Gambia Transport Service Company di kër gi nga xam ne nag dañoo yëngu si rek wàllum nag daal euh, dem ak dikk amee nag li nga xam ne moo di ay boos wala daal ay waruwaay ñoom nag keroog loolu ni daal nañ ab daje boo xam ne seqal nañ ko ak way taskatu li nga xam ne moo di xibaar yi xamal way taskatu xibaar na daal nag daal jëfandu xam ne daal dañ ko nag bëgg tàmbali daal jëfoo ñu nag daal di ko xamee si li nga xam ne moo di daal travel smart card euh, wala sax ñu duppee ko taamu card mu di ab nag carte goo xam ne daal nit mun na bu fekkee ne daal am ga ko mun ngaa nag jëfandikoo li nga xam ne moo di boos yi nga xam ne euh, GTS yi nag ñoo ko moom nag daal te sax daal du laaj sax nga amee li nga xam ne moo di daal euh, koppar gannaaw nag daal ay nag bés yu ay yu bëri yoo xam ne mbir mi nag daal ñu ngi koy nag daal xamal li nga xam ne moo di askan pour daal askan wi mun ko nag daal di yëg seen nag li nga xam ne moo di njëfandu jooju ñoo xamee si travel smart card di ab carte boo xam ne ñu ngi ko dubbee taamo card ne daal lii nag euh, ab nag mbir la moo xam ne euh, nag daal dañ ko nag daal indi euh, pour daal yombalal askan wi lu aju si wàllu dem ak dikk nga xam ne daal askan wi bu fekkee daal yow am nga li nga xam ne moo di carte bu wala carte googu du nag aajo sax nga amee li xam ne moo di koppar keroog li xam ne moo ne moo di looni daal lañ ko nag xamal nga xam ne moo di way taskati xibaar yi xam ne nañ ne ni kii nag si rek daal àllarba gi sax nax daal di eh, dalloo wala tàmbalee jëfandikoo li nga xam ne moo di daal karta googu ki nga xam ne moo di Sidi Kany nga xam ne moom nag lañ dénk general manager si kër googu ñu xamee si GTSC wax na daal njëriñ ji nga xam ne carte bu wala carte googu eh, daal dina ko am nganaaw bi nga xamee daal ab nag mbir la moo xam ne luy nag yombal eh, ñiy jëfandikoo boos yi nag daal seen wàllub li nga xam ne moo daal dem ak nag daal dikka la bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddoom gannaaw bi nga xamee ne wax ne daal lii nag bu fekkee daal yow am nga ko carte googu wala carte googu nag bu fekkee daal am nga ko du nag ajo sax daal nga amee nag daal eh, xaalis si sa loxo waaye nag carte googu rek ngaa nag daal di jëfandikoo sa rak daal ay shir wala sa dama ko dikka nag mun a yomb bu fekkee ne daal yaa ngi jëfandikoo li nga xam ne moo di boos yooyu nga xam ne GTS yi ñoom ñoo ko nag daal di moom moom Mr Kany mu nag wax ne nag daal lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di kaaraange si li nga xam ne moo di carte yi wala carte yu tamit ni ay kaaraange nag yu wóor la ne daal boo fekkee ne sax daal yow carte gi nag daal daf na la sax daal di réer wala sax nag daal mu yàqu jàppal ne daal dinañ la nag daal di jox beneen bul nag sax daal euh, jaaxle ne daal ñàkk nga li nga xam ne moo di sax xaalis waaye nag daal koppar gi nga xam ne nekkoon na si li nga xam ne moo carte googu xamal ne daal dina fa nag daal nekk ba léegi dafa dañoo laaj rek ñu nag daal di la jox beneen li nga xam ne moo di daal carte mu nag wax ne daal ab carte la goo xam ne ñi nga xam ne sax daal ñoom lay gën a mooy nag ñi nga xam ne ñoo di soxna yi nga xam ne dañoo yëngu si rek wàllub li nga xam ne moo di njaayam li nga xam ne moo di daal léjum nga xam ne daal saa yu nekk nak ñu ngi amee nag koppar si seen yi nag li nga xam ne moo di loxo ne daal bu fekkee daal carte gi nag am nañ ko lu ay seen wàllu nag daal dem a dikk nag daal luy nag daal di yombala keroog li nga xam ne moo di daal lundi sax daal ñoom nag daal pour rek daal daal di xamal waaye taskatu xibaar yi nii nag kaddu wala carte googu naka lañ koy jëfandikoo sax daal waraloon na sax daal ñu nag yëpp li nga xam ne moo di taskatu xibaar yi jëlee leen si li nga xam ne moo di seen dépôt bi nekk foofu si diwaanu euh, di dépôt bu GTS bi nekk foofu si diwaanu Kanifing dem nag ba diwaanu li nga xam ne moo di Banjul euh, dellu si waat nag ñu ngi ko def nag pour rek daal xamal waaye taskatu xibaar yi daal ana daal euh, carte boobu wala carte googu nag daal naka la ko nag nit mun a daal di jëfandikoo ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar ki nga moom lañ dénk ndombal tànk ndombal tànk bi li nga xam ne moo di daal talaata daal daal dina nag fësal li nga xam ne moo di daal ay xibaar si ay liggéey yoo xam ne ñoom takkader ñu xamee si Gambia police daal ñu ko doon def lu li nga xam ne moo di ay defkati li nga xam ne moo di daal ñaaw bi nga xam ne daal wax na ne si yi nga xam ne moom nag lañ weesu am na daal ñenn ñoo xam ne daal lañ nag njort ay defkati ñaawteef la ñoo xam ne dañ leen nag daal di uh, teg li nga xam ne moo rek loxo bokk na si nag ab van drive boo xam ne moom nag li waral sax ñu teg ko loxo nag daal dafa nag daal di song ab nag daal uh, police uh, officer moom ki nga xam ne moo di nag police PRO PRO ASP Modou Moussa saw daal dina wax daal li nga xam ne moo di Gambia Police Force seen ay nak ndaw si nag daal fan yi nga xam ne moom la ñu weesu nag daal ñu doon amal lu ñu xamee si patrols maanaam nag daal amal nag ay nag wóoraalu yoo xam ne ñu ngi ko doon li nga xam ne moo di daal réew mi di yi nga xam ne jàpp nañu ne ay nag defkati ñaawteef nag fa moom ki nga xam ne moo di police PRO bi nag mu nag wane li nga xam ne moo di patrols yi wala wóoraalu yi nga xam ne ñu ngi koy def nag dañ koy def pour rek daal gën a aar li nga xam ne moo di askan wi surtout nag daal bu guddee gannaaw bi nga xam ne daal nemmeeku nañu yenn si li nga xam ne moo di ay béréb yenn defkati ñaawteef nag daal fa lañ dee faral di nag daal di làqu mu nag jàpp ne bu fekkee daal police nag ñu ngi amal ñu xamee si patrouille maanaam di nag wóor nag daal si rek li nga xam ne moo di béréb yooyu dinañ nag daal mun nag di mun a ruba ñi nga xam ne daal ñoo def def ñooy def kati nga xam ne moo di ñaaw teef moom ki nga xam ne moo di police piaro bi nag wax na ne euh, bu yàggut nag daal am na daal ay samba wala ay def kati ñaaw teef yoo xam ne teg nañ leen loxo si diwaanu Wellingar ak diwaanu li nga xam ne moo di Burfut bokk na si koo xam ne moom ab van driver la boo xam ne dafa songa ab nag euh, police bu jigéen nag la daal di euh, songa Euh, moom ki nga xam ne moo di police Piaro bi nag wax na ne seen nag ndaw yi nga xam ne ñoom lañ xamee si anti crime unit ñoom nag daal euh, si fan ñu weesu teg nañ loxo lu rek toll si fukk ak ñeneenti nit ñoo xam ne ñu ngi leen tegoon tegee loxo si diwaanu li nga xam ne moo di Wélingara gannaaw bi nga xamee foofu si diwaanu Wélingara dafa am nag nag ku leen jox ay xibaar xamal leen daal am na daal yéen a def ko ti ñaawteef yoo xam ne daal ñu ngi si béréb boobu nag daal euh, di fa nag daal di xeex gannaaw gi nag ñoom police yi bi ñu fa demee nag daal daal di nag teg loxo si rek daal ñenn ñooñu nga xam ne ñoom lañ fa nag daal di fekk wax na ne am na beneen euh, waay joo xam ne moom ab van driver la boo xam ne moom li waral ñu teg ko loxo nag moom dafa nag songa nag ab police officer bu jigéen euh, daal dal si kawam euh, loolu nag la ko nag yoon di li nag daal di toppee moom ki nga xam ne moo di van driver wax nañ ne bi mu defee jëf ji ñi nekkoon ñi teewoon nag mbir mi sax daal di ay xale yu góor ñu ko mujjee daal di tek loxo jébbal ko li nga xam ne moo di police yi Euh, si seen euh, mobile traffic unit bi sax fa lañ ko yóbbu waaye moom van driver bi sax moom police piaro bi sax wana ne moom van driver bi sax dañ ko mu dee yóbbu fi nag mbaxana doon ne benn moom police piaro Modou Moussa Sissaw mu nag sàkku si li nga xam ne moo di askane surtout ñi nga xam daal ñoo di ay borom yi kër ne daal nañ nag daal di euh, dimbale li nga xam ne moo di takkadari seen wàllub liggéey fexe nag daal ñi nga xam ne ñooy dugg si seen i kër yi ñu di leen saytu di leen nag daal bàyyi xel bu nag baax a baax bu ñu sukkandekoo si rek police Piaro Mamadou euh, Moussa Sissawo si rek daal xibaar gu mujj gi li nga xam ne moo di kuréel gi ñu xamee si National Organisation for Disabled and Orphans di nodo nodo ñoom nag daal ak daal eh, seen ay nag daal àndandoor yi nga xam ne ñu ngi foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal Denmark ñoo daal di def ab jëf ju rafet na daal jël li nga xam ne moo di ay jumtuwaay yi nag daal bérébu jébbal ko nag daal eh, bérébu fajukaay jébbale ko wala joxe ko maye ko si rek bérébu fajukaay bi ñu xamee si Sukuta Health Centre nekk si suufi Kombonot li nga xam ne moo di daal eh, jumtuwaay yi nga xam ne moom la kuréel gi ñu xamee si Nodo ak taal seen i ay àndandoor yi nekk si diwaanu Denmark daal di joxe bokk na si xeetu jumtu waaye ji ñu xamee xeetu jumtuwaay yi ñu xamee si blood pressure machines bokk na si li ñu xamee si strollers euh, bokk na si tamit ak li nga xam ne moo di ay darab euh, pour rek lalu li nga xam ne moo di hôpital si rek ndaje bi nga xam ne ñu ngi jébale li nga xam ne moo di jumtuwaay yi ki ñu xamee si Lamine Mané nga xam ne moo yore na mal tànk euh, bi ñu xamee si Thiamane nekk tamit secrétaire général bu rek kuréel googu ñu xamee si nodo moom nag euh, daal dina wane ñoom nag daal di kuréel gi ñu xamee si nodo ak daal seeni ay àndandoor yi nekk foofu si waanu li nga xam ne moo di daal Denmark daal ñoo nag daal jàpp ne daal war nañoo nag daal euh, ut ay nag jumtuwaay yoo xam ne dinañ ko jébbale si bérébu fajukaay bi ñu xamee si Sukuta Health Centre gannaaw bi nga xamee ne nguur gi nag mënuñoo def lépp nag daal gannaaw bi nga xam ne daal dinay laaj léegi-léeg yenn si li nga xam ne moo ay kuréel nag ñu taxaw li nga xam ne moo di nguur gi surtout si rek laal lu ay si rek wàllu nag daal paj gi wala sax lu aju si rek wàllu njëm kanami li nga xam ne moo di réew mi Mariama Souare yore ndombal tànk bi ñu xamee si physician assistant si bérébu fajukaay boobu ñu xamee si Sukuta Health Centre wax na ne li nga xam ne moo di jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ leen nag daal di jébal jumtuwaay la yoo xam daanaka si si waxtoom lañ ko indi si waxtoom sax lañ leen ko jox gannaaw bi nga xam ne lu ñu soxla woon la mu nag daal di wax ne li nga xam ne euh, moom lañ gën a soxla fi mu nekk ne daal muy nag daal bérébu fajukaay bu daal nemmeeku soxla nañ fa daal ñu nag daal tabax fa yeneen li nga xam ne moo di tabax soxla nañ tamit yeneen li nga xam ne moo di nag daal ay nag daal jumtuwaay wala sax ay liggéeykat si li nga xam ne moo di bérébu fajukaay boobu Elizabeth Bass yore fa nombal tànka bi ñu xamee si officer in charge euh, foofu si Sukuta Health Centre moom nag daal dina wala li nga xam ne moo di jumtuwaay yi nga xam ne moom la leen jébbal jumtuwaay la yoo xam ne daal daanaka nag daal lu leen di njëriñ la mu sant gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo leen jox li nga xam ne moo daal jumtuwaay yi ne daal euh, li nag daal dinañ ko nag daal euh, dinañ ko amee daal si rek anam yi nga xam ne noonu nag la daal di muccee li nga xam ne moo daal ayib